waaw ndaje mi de jàmm ak salam moko ko wundu parce que dafa nekkoon série de rencontres bo xam ñu ko doon amal ak composante Guédiawaye rencontrer nañ fi ay chef de quartier rencontrer fi ay imam rencontrer fi ay ndaw rencontrer fi ay bàjjenu gox ay femmes de développement ay personnes âgées Covid bi taxone ñu arrêté touti mais euh, ñu nek di reprendre comme dañu nek di reprendre maintenant suñu activité euh, ñu ne kat ñi gënon djégé hôpital bi waron nañ leen rencontrer waxtaan ak ñom waxtaan bi nag lenn la mooy gën leen xamal hôpital bi wan leen li nekk ci biir hôpital bi waxtaan ak ñoom mais également taataan les bonnes pratique xaar égal ñoom aussi mën a jël li nga xam ne ñu ngi koy xaar ci hôpital bi dégg dégg nañ leen déglu nañ leen dégg nañ leen ñoom it déglu nañ ñu dégg nañ ñu te am nañu yaakaar ne comprendre nañu ku nekk sa morom comprendre na ku nekk waxante nañu ay dëgg te ku ci nekk ci ñun jàpp na ne léegi dina def hôpital bi moomeelam pour que ëllëg ak si biir mu nekk hôpital bu mucc ayib hôpital boo xam ne tiitër la ci ñun Sénégal mais surtout tiitër la ci ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko wër ba pare ñu gis ci seen bopp nag ci anam bu ne. waaw mais defe naa coow loo xam ne sëñ bi da nga woo journaliste ne ko kaay xool ñëwul loo ci mën tungu ne du teew ñuy nataal tey jii nii ñi fi ñëw gis nañ xam nañ ne fii amul dara luñ fiy lakk. ñu ñoo ko njëkk bañ depuis bi hôpital bi ubbee ba léegi amul dara dara dara loo xam ne mën nañ ko fee lakk saxaar nag mën na jóge fu ne nit mën na lakk pono nit mën na lakk ay branchage oto sax gis ngeen chantier moo fi nekk camion yi fi nekk sax mën nañu génnee saxaar ñu yaakaar ne déchet de soins la amul benn saxaar lakkuñu fi benn déchet banaliseur la ñuy utiliser wan nañ leen defal nañ leen démonstration bi jàpp naa ne nag am na ay assurance yoo xam ne gis nañ ko population bi yoon la woon pour ñun ñu rassurer leen te lii yëpp ay digal la loo xam ne dañu ko yàgg wax directeur boo amee poste de responsabilité da ngay jege askan bi waxtaan ak ñoom taat xool ñoom lan la ñu soxla ak lan la ñuy xaar pour que nga mën ngeen mën a gind compte donc loolu moo nekkoon sabab kii bi te am nañu yaakaar ne donc lii c'est un vieux souvenir ñu ko bind nag xaw ma lu tax ah fu sori parce que pas-pas baa ngi fi xam-xam baa ngi fi yéene baa ngi fi yéene état du Sénégal tey jii nii euh, mooy fexe ba hôpital bi nekk tiitaru Sénégal mais bu nekkee tiitaru Sénégal tiitaru déjà waa Géejawaay lay njëkk nekk. am na jumtukaay yu bari yoo xam ne tey jii mu ngi fiy dugg te li ko waral xëj na mbas mi la. lu ci ëpp état du Sénégal moo koy jënd fi def de fonds xaaratul kenn mu ngi fi indi scanner état mu ngi fi indi IRM état indi na fi ay lal indi na fi banaliseur euh, du personnel état indi na fi morgue te lu ci ko def donc hôpital bi fi mu fu sori la maintenant pour mu jëm fu sori il faut que ñu am sérénité sérénité bi wax lu personnel bi fi farlu

Euh, cinquante malades tey jii nii fi may wax ak yéen ki doon am deux cent malades bu demee ba am cinquante malades loolu moom mooy mbas maa ngi wàññeeku mais nag warul tax ñu bàyyi ndi ko war nañu continuer di fagaru di faggu pour fexe euh, vraiment mu yam fi mu génn suñu réew ñu mun continuer di dund nañu dëndee woon di mën demlante di mën di dikkalante loolu moom mooy suñu Babacar Yambou Faye la man maay délégué di quartier cité cité Atepa Ibrahima Diop Malibu Plage alhamdulilah re leer na ndaxit ñun ñi nga xam ne nu sommes les voisins plus proches de l'hôpital ñoom la ñun la directeur bi invité woon di waxtaan ak ñun ndax man dama yàgg sàkku lii noonu hôpital bi sax waroon na def une porte ouverte ndax ñun ñu dëkk si environnement hôpital bi xam lan moo fi xew wante heureusement directeur bi ah am na compréhension boobu moom moo ñu woolu boppam ne ñun ñu dëkk si wetu hôpital bi ñëw leen dajeek man waxtaan ma waxtaan ak yéen wax leen hôpital bi lan moo fi ak lan ñuy def alhamdulilah bi loolu amee c'est ñun ñoo ngi ko doon sàkku far mu defal ñu ko kon boog sant yàlla la. Euh, xamaa sant yàlla yi te dolli koo jàppale si liggéeyam ndax euh, ni mu waxee ak description yi mu def pour hôpital bi nur na ku nangoo liggéey ku nangoo jàppale hôpital bi nangoo jëmale nangoo dimbale malade yi ndax ñun ñu fi ne. Euh, commençant si à ay personne de troisième âge zone kon boo ku mel ni ñun ñu si muy faj si si lu yomb am rendez-vous amit par exemple bu ñëwee am euh, hospitalisation bo am, am accueil bo am ne dina rafet loolu lañ bëggoon C'est est loolu lépp wax ko am ne l'on si gis am ne loo am ne promettre nañu ko bu neex yàlla lim mu wax it yaakaar nañu dina ko def ndax nit ku dëggul dalal jàmm dal jàmm la dalal jàmm dal jàmm lañ si gis kon boog yalla yalla yalla yalla na yàlla oui le cette rencontre entre dans le cadre d'une série de rencontres que nous avions initiées depuis, fort longtemps. nous avions eu à recevoir ici euh, beaucoup de composantes de la société de, de les Badjanougor, les, les jeunes, les ASC, euh, les imams, euh, les maîtres coraniques, hein, les chefs de quartier. Et il nous restait dans notre, dans notre parcours d'autres quartiers. Et donc, euh, nous les avons conviés aujourd'hui, d'abord, un, pour leur parler de l'hôpital, comme nous avons fait avec les autres, pour leur dire ce qui se fait à l'hôpital, ce qui ne se fait pas, pourquoi ça ne se fait pas. En somme, pour donner des explications ou pour expliquer à la population un peu euh, ce qu'on est en train de faire et les objectifs que nous nous sommes assignés, les missions que nous nous sommes assignées et là où on veut amener cet hôpital-là. Et je pense que ça, euh, c'est des instructions que euh, nous avons toujours reçu euh, du président de la République, euh, M. Maxal, et de le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Doussar, qui nous ont toujours instruits d'être à côté des populations, d'écouter les populations et de leur apporter les réponses requises à leurs interrogations. Ah oui, c'est vrai, ça nous a donné l'opportunité d'abord de rassurer les populations riveraines, de leur montrer que ce qui est dit ou écrit n'existe pas parce que nous n'avons pas un équipement qui brûle des déchets. Nous avons montré effectivement le circuit de traitement de notre déchet. Nous utilisons des banaliseurs. Ces banaliseurs transforment les déchets euh, d'activités de soins en déchets ménagers et transportés par une société spécialisée pour les traiter. Donc il n'y a pas vraiment euh, d'incinération à l'hôpital dal Je signe, je persiste et c'était l'occasion pour nous de montrer parce qu'il faut que les gens voient pour pouvoir y croire. Et je pense qu'ils ont vu un peu ce que nous utilisons comme, comme déchets. Et nous n'avons jamais, je dis bien jamais, depuis le démarrage de l'hôpital, le 29 août 2016, brûlé des déchets au niveau de cet hôpital-ci. C'est un choix. Nous n'avons jamais utilisé d'incinérateur dans cet hôpital. C'est un choix également. Donc je pense que la population est rassurée. La population a vu la population a compris et la population riveraine a scellé aussi avec l'hôpital un partenariat, un partenariat qui va être certainement un partenariat gagnant-gagnant. Oui, le CTE, actuellement, le nombre de malades diminue considérablement. Euh, le CTE recevait à peu près 200 malades. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à une cinquantaine de malades. On croise les doigts, alhamdoulilah, le nombre de malades diminue, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir baisser les bras. Il faut toujours respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, à savoir euh, tout ce que vous savez, hein, tout ce qu'on a donné. C'est vrai que je n'ai pas mis le masque, mais c'est vous qui m'y avez oui, Dalal Diam a un très bel avenir. Dalal Diam a un très bel avenir au regard, justement, des investissements que l'État est en train de faire à la place même des bailleurs de fonds. Beaucoup d'équipements beaucoup d'acquis aujourd'hui que Dalal Diam connaît sont le fait de l'État du Sénégal qui pourtant n'était pas obligé parce qu'il y a un projet, un programme avec des bailleurs de fonds qui auraient dû le faire. Dalal Diam est en train de travailler, comme je le dis. Euh, c'est même Covid qui a mis les projecteurs sur nous, mais nous étions de travailler lentement mais sûrement parce que nous voulons aller loin. Oui, on est très satisfait. Par exemple, c'est le directeur qui nous a invités, nous, les quartiers environnants de l'hôpital. Puisque moi-même, j'ai demandé à ce qu'une porte ouverte soit faite au niveau de l'hôpital afin que nous, voisins de l'hôpital, on puisse rentrer à l'hôpital, voir tout ce qui se passe. Mais néanmoins, c'est le docteur en personne qui nous a invités à l'intérieur de l'hôpital. On a tenu une réunion avec lui. Il nous a fait des propositions. On a vu, par exemple, ce qu'il a envisagé de faire pour demain, pour les lendemains meilleurs de cet hôpital. Et encore, on croit en lui, puisque vraiment, c'est un jeune, euh, encore. Euh, qui fait tout ce qu'il peut et il nous a donné entière confiance. Une, rencontre vraiment, une rencontre le Diam. Une rencontre le Diam. Tu sais, une rencontre le Diam, Alhamdulillah.